mbokki ndakaaru man la Pape Djibril Ndiaye mi nga xam ne maa yore tête de liste ndakaaru bi nga xam ne mooy coalition républicaine sàmm suñu réew jottali kàddu askan wi mi nga xam ne ki ko jiite moo nekkoon directeur de l' emploi ñu koy wax Pape Modou Fall li tax nag askan wi ñëw di waxtaan ak yéen ci wàllum ndakaaru ndakaaru dañ bëgg indi ay réforme bi ci njëkk jàpp nañ tey étudiants yi ñun war nañ jël seen kàddu yóbbu leen ci pencu ndawum réew lu tax parce que gis nañ tey pour dem université dafa am ay quota yoo xam ne étudiants yi dañ koy dañ koy soxla

di utiliser waat ñaari at benn ak ba ñaari at yoo xam ne da koy jël nu mu ko neexee sa ba ko neexee mu wàcc la ñun nag dañu def benn proposition loi boo xam ne dafay indi loo xam ne ki lay jël pour liggéey la kuli alin da lay jël si un contrat à durée indéterminée parce que nag loi loolu la wax loi dafa wax ni contrat du déterminé amul exception yi war a nekk donc ñun dañuy def euh, loi boobu mu nekk benn loi boo xam ne c'est loi protectrice pour que contrat à durée déterminée jeex loolu benn la beneen bi tamit boo la xoolee il faut aussi ñu renforcer encore une fois li nga xam dañ koy wax ci yenn code yi mën naa jël li ñuy wax le code de l'urbanisme am nañu ay jafe-jafe loolu ci dëkkuwaay dëkkuwaay boobu nag dafa fekk ni code de l'urbanisme bi ñu wax kenn indiwutu ay réforme boo wax léegi loolu moo waral dëkkuwaay yi metti waaye itamit foog ñu bàyyi xel ci ki nga xam dafa yore këram di ko dundee foog itam nga bàyyi ko xel moo tax léegi li ñuy def indi ay indi benn proposition de loi ngir le code de l'urbanisme ñu mën ko coppi ngir ko ki nga xam ne dafay dëkk ci kër mën dëkk ci tranquillité waaye itam ki nga xam itam day loué lim ci am mu loolu itam mën ko indi ci dugg sell waaye beneen itamit mooy ndakaaru dañ bëgg def ay réforme yu mucc ay réforme yooyu nag mun ñu ko def fi rek yéen wóolu woo leen ñu votel ñu ngir suñu seen kaddu ñu mën ko jottali ci nga xam ne mooy pencum ndaw mu mi loolu moo tax ñu jox leen spécimen bii nga xam ne verte bi dafay wane ni ñun dafa ñun li ñu gëm lu ñuy wax la pureté la vertu loolu lañu ko gëm lu ñuul li boo leen xoolee parce que lan la kaddu bi ngay jottali ci départ bi xamoo ko woon dafa ànd ak lëndëm lëndëm boobu nag yow ñu la ñuy jël yóbbu ko ci leer moo tax loxo bi ñu leen jox mu nekk loxo bu leer nañ